ci bés bu màgg bu tedd bi di yawmu tashu'a ak yawmu ashura biñ dëgmal suba incha allah ñëwoon nag tey indi leen ci ay leeral ndax bëri waana luy nit di def te du xam lan moo ko sabab ñu bëgg leen indi ay leeral nag eh, ci sababu bés bii di tashu'a ak suba incha allah di ashura mbokk yi bu ñu waxee olof di ko woowee tam xarit ashura olof di ko woowee tam ñarit te moo nekk suba waaye nag li ko waral moom na leen indi ay leeral incha allah mbokk yi dañoo jële ci ibnu abbas radiallahu anhu mu ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi ñëwee madina dafa gisoon yahut yi daan woor yow ma asuraata muy suba incha allah yonente bi laaj leen lan moo waral bës bii lu xew ba tax ngeen kay woor ñu xamal ko ko bés bii kat mooy bés bi nga xamante ni ci la waa banni israila mucc ci seen noon boobu di na maanaam muusa ci la muccal waa banni israil yi ko toppoon ci na moo tax ñu koy woor di ko sante borom bi ndax muusa muñ ko digaloon yonente bi sallallahu alayhi wax ni kat man kat gënoo leen ma yay may woor bës bi kon bés ni ki tey maanaam danaa ko woor daal di digale tamit ñu koy woor kon mom moy sabab wor yow ma asura bésu tam ñarit moo hadith bi ñëw ne an ibni abbas radhiyallahu anhuma qaala qadima rasulullahi salallahu alayhi wa sallam al madinata raa al yahuda tasuumu yowma ashura fa qaala ma hada qaalu hada yowmun saalix hada yowmu nujjal muus laaha muusa an aduwihim qaala ana axaqu bi muusa minkum fa saamahu wa amara bi siyaamihi kon xadis baa ngi noonu bi firndeel ni kat yónnante bi mu fekkee yahud yi madina te mooy juif yi daan woor bés wa ashura bi mu leen xadis bi mooy li ñu leen nettali sànq kon loolooy sabab bi kon ndakati lépp looy def rek am dafa war am lu koy sabab ndax yónnante bi gis na ni yónnante yàlla Muusa daka daan woor dégg ko ak xeetam moom mu xamal yahuut yi juif yi ni leen gënoo maa gënoo leen ma yaay ci yonente yàlla Moussa ndax yàllaa ko yónni moom yonente la kon man danaa ko wóor di ko ko santale borom bi subhanahu wa taala digal ko saxaaba yi nag ñu ko daan wóor kon loolooy indi yow mu asura yow mu taasua nag li ko indi nag tamit ci lañ ni di indi ay leeral dafa amoon nag saxaaba boo xamante ni dafa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa Muhammad kat ndax ñun kat war nañoo ànd ak juif yi nga xamante ni gëmuñu la di leen wooral seen bés ndax kat eh, ñoom kat gëmuñu la dugg ñu ci diine lislaam te sama xalaat bu gàtt kat ñu jëloon yow mu taasuwa muy bésu tamxarit mooy tey ñu daal di koy woor santale ko yónent yàlla Muusa waaye nag ñu bañ a yamook ñoom bés maanaam ñu bañ a yamook ñoom bés mel ni ñoo bokk diine yonente bi nag rafetlu xalaat boobu ni ko ka loolu kat dëgg la li nga wax de rafetlu naa ko lool ndax ñoom bokkuñu diine waaye bësu taasuwaan ah ñu woor ko euh, di ko sant di ko santale yonente yàlla Moussa yàlla loolu lu jaadu la ñu bañ a yemook ñoom bésu tamñarit mooy suba bi loolu amee nag yonente bi sallallahu digal saxaaba yi wax leen nii leen kat tam xarit kon léegi bu ma fekkee léegi tam xarit laay woor dootuma woorati ansura te muy suba tam ñarit année boobu nag laataa muy ñëw tamxarit fekk ko fi moo tax am na ñoo xamante ni dañuy boole ñaari jours yëpp di ko woor ndax nee nañ bii yonente bi mooñ ko digal bii da ko def bii amru la bii fi'lu moo tax ñu di ko woor ñaar yëpp boole ko di ko woor waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tamxarit jotu ko woor waaye digaloon na ni tamxarit léegi lay woor bàyyi yow ma asura kon loolu tamit ay leeral yu jar bàyyi xel la eh, kon ñu ñëw indi ci li nga xamante moom moo xew ci bés bi maanaam xew-xew yi moom la ñuy indi ci euh, vocal bii di